woon na foofu. bi muy bëreeg Ali Ali doon xale bu ndaw. pour ñoom Mbaye Guèye mën Ali. bi muy bëreeg Alioune Fall Alioune Fall doon xale bu ndaw Mbaye Guèye daan na ko mais expérience la ko daane. mais ku xool combat boobu xam ni donc kii jeexal na. mais supporteru Mbaye Guèye moo mënul gëm ni Mbaye Guèye day jeexal. bu dee xam nga Mbaye Guèye suivre nga ko. bi mu demee ba nekkatu fi nag mbokk yi ci la Moustapha Guèye ñëw vraiment jël flambeau bi yëkkati ko. yëkkati ndakaaru parce que dañuy wax écurie ndakaaru mais Fass mooy écurie ndakaaru ndaxte moo jëkk ci ndakaaru mm. waaw dafa am benn anecdote bu dafa ñëw léegi ni sama nga bañ ko fàtte ma bañ ko fàtte <laughs> parce que man dafa ma doon yéem su ah. tafaa doon bëre ah. ngay gis ñoo xam ni c'est-à-dire suñu su su su tafaa duggee ci ci enceinte bi rek. da ngay da ngay gis ñu bëri di génn di jooy. waaw dañuy tof. di génn di génn génn complètement si stade di jooy. di jooy dinaa jóg benn footballeur waaw dinaa benn footballeur. c'est que Sakho la tudd. Ah, day werante un mois. <laughs> ci Tafa Gueye. ci Mbaye Gueye. ci Mbaye Gueye ci jooy. lu ne mu def ko. bu Mbaye Gueye taxawee ak ki mu war a bëreel ba yëkkati at bi yëkkati loxo ah, mu génn terrain c'est que saxoo nga ca ginnaaw turbine ba. toog def nii. Oh. di xaar résultat di xaar yaa te boobu xam ku génn di mu xam mu duggaat ci. te boobu mi ngi mi ngi football ah, dama lay wax seetaan naa. Oh, duba lees mbéygay ñu daan mbéygay. c'est que saxoo gedd regroupement. te boobu GIA Coupe d'Afrique la doon dem. Sega mer Guettemberg moo ko dab ci biti bi. ci bunt bi jàpp ci loxo bi dugalaat ko ci biir kaan. pour moom bay gi warul daanu. Babacar loolu yàgg na Fass. Mhm. yàgg na ci mbay Moustapha daf koo doon. Moustapha day bëre ak euh, Balla Bey numéro 2. ndeysaan Naar Mbeng. premier parce que deuxième bi maa ko arbitré. premier bi premier bi la. mais boobu yeggul non yow deuxième bi arbitré woo. si Ba premier bi nga. Baboy Baboy yow premier premier bi premier bi nga arbitré. non deuxième bi si toor la waay moo. arbitre bi yàq na lamb bi yàq na lamb non deuxième bi. de premier bi nga arbitré mooy si toor oui. deuxième bi mooy si toor premier bi yaa ko arbitré deuxième bi si toor premier bi je pense que yow wala su ma juumul. premier bi nga. non non non. premier bi. premier bi nga arbitré deuxième bi si tooroo ko arbitré. arbitre bi yàq na làmb deuxième bi yàq na làmb duma ko fàtte. deuxième bi mooy bi ñuy xëccoo position. waaw position voilà. waaw boobu c'est premier bi premier bi kon. Moustapha di tous maa ngi ci géwél bi taxaw di tàllal sama micro. bala naar di jooy. nga sën ma ko paa puusal sama nijaay <laughs> ah, mu yekk ma lu <laughs> mu du ma puus. noonu la la mel. Mm-hmm. waa Fass ñoo am ay ay xobe. Mm-hmm. yoo xam ne dañuy jooy Moussa Dia ngi fi ci kër gi ñoom nan la xool bu ñu xoolee Mbaye Gueye jooy bu ñu xoolee Moustapha jooy. Mm-hmm. loolu moo waral tey ji mbokk yi eh, Mbaye Fall ah, nu ko nu ko Muudu Mbaye doon woowee. Mbaye Fall ak Tafa ñu doon ñoo xamante ne lii ñuy def émission bi extra ñoom ñoo ko créé ci seen déggoo ah àndoon depuis 93 Tafa jël ko teg ko ci wetam ñuy liggéey ba tey ji moom laa leen wax léegi muy ànd bu rafet waaye nag anniversaire bi du ñoom ñaar rek ndaxte gis nañu cadeau yi gis nañu gâteau yi gis nañu lépp Mbaye Fall ah tey jii dundal nañu bu baax a baax a baax. ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam yokk wéram ak njàmbaar gi mu doon. ci liggéey ku sonn la ci liggéey. boo dee liggéey ak moom da ngay sonn. waaw ndaxte du bàyyi dara. ñu xool anniversaire bi karaajo won lu tuuti <laughs> ak témoignage yi wax yu rafet yi gato yi lépp ñu xool ñu dellusiwaat ci L'Oeil du Tigre. le président des sages El Hadji Moustapha Gueye ñaanal ci Gueye Gana Sowori Gueye Gana góoru na bu Gueye soo jàppatee mbër ba muy jooy bàyyi ko di leen ñaanal rek long bi gudd fan wér gu yaram mu jug rafet yàlla na ko yàlla defal ci barke yoon bi waaw lu yëngu lu ne la ko yëngal doole lan moo yëngu foofu sama grand sama mag sama xarit sama doomu ndey sama idole Moustapha Gueye grand maa ngi lay souhaiter la totale di la souhaiter tous les bonheurs du monde di la souhaiter joyeux anniversaire longue vie santé bonheur réussite totale. joyeux anniversaire joyeux anniversaire Père Tafa Gueye ah ñoo ngi lay souhaiter at yi bëree bëree bëri bëri yàlla na ko yàlla defal nga am gudd fan am wér xam nga longue vie à ñoo ngi lay ñaanal projet yëpp suñu borom defal la nga réussir ko. maa ngi souhaité nit ku baax xam ne champion la yàgg na euh, sagal Sénégal yi bégal leen muy Moustapha Guèye sa anniversaire bi nga xam ne yàlla suñu borom may lañu fekk jàmm yàlla nga ko yàgg fekkee man dëgg wér yaram sutura ak sa njaboot gépp te dañuy souhaité suñu père suñu père Tafa Guèye ñoo lay souhaité père di ñaar ñaanal jàmm di la yàlla na yàlla may gudd fan père Tafa Guèye naan loo bëgg sa am na yàlla suñu borom defal yow suñu papa la suñu lépp la suñu référence na yow ku xool seew rek champion bu xool seew rek xelam day gën a dal. ma lay ñaanal yàlla yàlla defal la jàmm defal la xéewal yokk sa martaba yow ak sa njaboot ak sa jabar jaraaf yàlla yokk seen wërsëg yow nga dund cent quinze ans wala cent quatre-vingts yàlla na ko yàlla def. happy le deuxième tigre de Fass Moustapha Guèye ñaañaanti Guèye Gànna sa rak sa xarit le troisième tigre de Fass moo lay naan longue vie santé d'affaires prospérité réussite totale à projet projets la yàlla defal jàmm sàmm la njaboot ki barkeel réussir ba jàppale la bu wuute la ci njaboot ci barke alxuraan bonjour à tous bonjour papa joyeux anniversaire joyeux anniversaire papa waaw ñu ngi lay ñaanal rek di la ñaanal wér gudd fan waaw nga fekkee at yu bari incha allah. incha allah ah, nekk ñu fa nag waaye suñu xel yëpp mi ngi foofu. Mhm. waaw bu ñu sañoon dañ fay nekk di la ñaanal daal di la ñaanal bëri rek. longue vie longue vie longue vie yaa daanu mel ni yaa daan. <laughs> ah le meilleur papa au franchement le meilleur papa le meilleur mm. lu bëri père. très investi pour ses enfants franchement mm. ñu ngi ñaanal gudd fan ak mm. franchement on aurait vraiment aimé être euh, vos côtés. Mais euh, malheureusement, on est là, enfin, on continue nos études tranquillement. Et tout ça, c'est en partie grâce à toi. Euh, donc, euh, Yalla Ngafeke Suningeri, c'est tout ce que c'est tout ce qu'on demande. Et euh, très bon courage à toute l'équipe de l'Eltique. On passe euh, un coucou général. Et merci à tous. Bisous. Ciao, longue vie. Mais le 19 Riborum, le tigre de face en action, ça bouge pas. Joyeux anniversaire. happy birthday to you. suma papa. moo tax ma ñemee bëre. moo tax ma ñemee dóorante. 90 kilos la ub làmb. man maa ngi nii 90 kilos laa. kii ma daanu mel ni moo daan. Moustapha Gueye. yoo lele père. maa ngi lay souhaité happy birthday la part de Mathia Perella happy birthday to you longue vie à toi. aywa salaam salaam. koyaate ah suñu père Tafade ah père ñoo Seydi Jamil père ñu ngi siyaar bu baax père dina ñaan gudd fan ak wér gu yaram ak tawféex ak taysiir père dina ñaan nga lu bare bare bare bare bare yàlla fere sa xol ak seen naam xoj sa mébét ci làmb ak sa mébét ci écurie Fass yàlla mottali ko yàlla bàyyi si kanamu njaboot gi père maa ngi baax. waaye bonjour les vieux tigres <laughs> nous vous souhaitons <laughs> joyeux anniversaire plus de cent ans sans ordonnance comme on le dit. happy birthday happy birthday le grand maître Tigre la Fass maa ngi lay souhaite happy birthday ci turu sportif yëpp ñu lay souhaite happy birthday di la ñaanal gudd fan ak wér yaram li nga def ci làmb wër mu réew wër tëj la réew. salaamaaleykum. This one goes to the special one, the one and only Tiger, the blueprint of Senegalese wrestling, Alhaji Moustapha Gueye ñu ngi lay souhaiter très bons anniversaires au nom de Mogates Global ak suñu partenaires yëpp. waaw salaam salaam tey moom dañoo kontaan di defal vidéo bi suñu papa Moustapha Gueye di ko souhaiter joyeux anniversaire borom xoolu or bi borom xoolu jamaa bi vraiment ñu ngi lay ñaan la yàlla yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla yokk la ci barke Seydina Mohamed ah. Happy birthday to you. Happy waaw Moussa Ba Diagne ñëw naa la happy to yow dundal. waa mais salaamaaleykum salaamaaleykum bës bës ku nekk ak bësam perte faa yee. maa lay souhaité joyeux anniversaire man sa doom sa xarit ah. yàlla na suñu taxaw sàmm la aar la nga yàgg di ko féete ci barke Seydina Mohamed. happy birthday. waaw grand champion de tout le temps ah si Moustapha Gueye c'est mon idole c'est mon Thomas. j'ai pas pour habitude à faire des vidéos parce que c'est pas de la maison mais je vais le faire exceptionnellement pour toi pour te souhaiter un joyeux anniversaire euh, pour te t'exprimer ma fraternité et tous les moments qu'on a passés ensemble des bons et des mauvais moments Aujourd'hui, donc, euh, je vais essayer de chanter, bien que je ne sais pas trop chanter. Joyeux anniversaire, Sidi Jamil. Happy birthday to you, Mustapha. Happy birthday to you, le fils de Merastou. Happy birthday to you.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 dellu si moo ne yàlla nga yàgg lekk ceeb jaajëf Père Tapha. merci Mbaye Fall ah beaucoup d'effort Mbaye Fall ah. oui il lâche jamais il lâche jamais. oui Père Mbaye Fall Mbaye Fall. lumière bi lumière bi. voilà. mais waaw nii la ah. premier pas premier pas premier pas. premier pas. J'ai un problème, hein? Mets-toi là. Non, c'est pas grave. Non, mets-toi là. Non, day nekk deux parts. Non, du ma nangu, du ma nangu benn part. Non, non, non. Deuxième part. Voilà. Benn part bi rek. Non, non, non. Kaa koy teg ci saa de. Deuxième part. Mais c'est pour Mbaye Fall. pour yéen ñaar ñëpp la ah. déedéet c'est pour Bécaye Mbaye. Bécaye Mbaye la voix d'or. Bécaye Mbaye la voix d'or. c'est difficile de c'est difficile de choisir je peux pas choisir. waaw léegi léegi man bu ma jox. Ah. léegi bu ma jox pour Bécaye la. Ah. c'est la voie d'or. macha allah. c'est la voie d'or. mais merci. moom la suñuy def suñuy def booy jël ma ñu benn anecdote euh, man su may def ay zapping moom moo tax may def zapping parce que dama bëggoon sàcc voix am dugal ko si émission lay di dégg voilà Babacar laa jox par bi parce que Babacar bari na combat Moustapha Babacar boo ko at le nouveau venu oui ah mu doon xale et puis correct macha allah lamb ji ñëpp rek yaa moom bi merci beaucoup Super Régis, c'est le partage. Oui, oui, vraiment. C'est un honneur. Merci. Bay Fall. Nga baax. Oui, oui, vraiment. Ñañe ki gana ñaña ti bi gano Moustapha Gueye. Ki moo daan mel ni moo daan yow dafa gën. Yoo. jenga ade jagabe yo kuma chini mane akara mane yo ene awiyo yo ah machallah merci beaucoup merci à tous waa Fass toog fii am na sa benn booy Siré. Mhm. Siré Fass laa ko tuddee. très bien waaw nee na li ngeen di wax sax xamu leen ngeen xamu leen ñun ñu nekkoon ak moom. <laughs> ñoo xam Momar Ndiaye bëggoon naa vraiment téléphone bi ngeen ubbi ko Babacar ndax. ah waa Régis bu ngeen nu jàppale woon ci téléphone bi. ah Momar Ndiaye war na participer bu duggee moom dama gën a Momar nee na moom bu kenn wax moom moo war a wax. ndeysaan dëgg ndaxte moo xam Moustapha moo ko yar. eh li muy ñëw seen kër dafa xale bu ndaw la. Ah, muy supporter Mbaye Guèye. Hmm. wax na lu baax lu nekk waaye bëgg na dugg carrément ci biir émission bi. Momar ñi ngi def tout pour ñu ubbi téléphone bi. <laughs> et bu ngeen mënee afficher le numéro yi gars yi mën a participer joxe seen xalaat. lii lépp Moustapha Moustapha booy dégg lii ak carrière bi nga def ci làmb mm-hmm. macha allah békaay damay kontaan trop su may dégg lu mel nii en général dañ naan booy faral di def wala mm-hmm. ci yow bis bu ñu jëfee ci yow rek sa xol mm-hmm. naa ci gars yi gën a bëgg ci monde gis naa ne ñu bari ay ay yu bokkul écurie xëy ñu bëree sama mbër daan leen ñu ñëw intervenir wax Mm-hmm. li ma séq ak ñoom la mm-hmm. li ñu séq nag moo diggante papa ak doom waaw mm-hmm. boo ma laajee conseil ma jox la waaw su ma la gisee nga nekk ci naka dul noonu ma jëma teg ci raay ndax man dañ ma ko defaloon donc dama retourner la monnaie sama point yi topp sama ginnaaw ah ñun nag dañ yàgg di bëri daje ak ay anciens lutteurs ñoo xam ne bokk du ma lim tur bokk leen écurie bokk leen écurie ñu wax ak yow ndax yéen gu ñu am ci yow rek ak seen la nit nag boo nekkee ci dara di ci liggéey soo gisee ki kuy nuru da ngay sawar ci poussé ko pour mel ni yow mm. maam gën la parce que yow li nga def def nga ko pare mm. moo mm. doo ko dina defaat ko yow ko jéemale rek nekk ci koo jàngal mm-hmm. da nga da ngay ñaan yàlla yow yàlla na nga am ñu ñu la dàq bëree ñu yëpp ay victoire ñu la gën carrière mm-hmm. parce que loolu def ba pare ba mu jàll jàll na moo doo ko jël si waat mm-hmm. donc ñun loolu lañ yéene aussi képp kuy takk ngemb rek yaa xam écrit boo mën a bokk loolu nag moo tax ah xale yi yëpp génn ak ku nekk rek wax sax souhaité ma sama gudd fa nag wér gu wax lu ñu tax suñu diggante ak ñoom am na nag ñeneen ñoo xamante ne sax def nañu waaye xaju ci xaju am ñoo xamante ne bëggoon nañoo def mënuñoo def mhm. am ñoo xamante ne quand man man sama jëm bopp man ñaari mbër rek laa woo mhm. mbay Fall mi dong moo toppatoo link linki ba mat sëkk waaw waaw ndeysaan ah am na ñu wuyu nag ñu wuyu ñoo feeñ am na rek ñu wuyuwul ñu wuyuwul nag xam naa ne benn yoon. dinañu wuyu. Eh, ñu feeñ ñu deful benn am na ñaar ñu feeñul. non jot la jot la amuñu jot rek. Eh, eh, feeñ nee na doyen bi la. ah am na kenn ku feeñ ku ma ci intéressé. Uh-huh. muy Mansour Diop. ndeysaan <laughs> dama am lu ma seetlu. Uh-huh. mbër yëpp ko bëgg. Ah, waaw loolu dama ko seetlu. Mm-hmm. ancien lutteur la. Mm-hmm. ñëpp xam na ni Pikine kuy bëri ba waa Pikine bu sañoon waa Pikine daan waaw mais amul Pikine ah. amul Yoff amul Parcelles amul Guèye ñëpp ko bëgg. waaw Mansour ñoo bokk génération sa tofalaa ci moom rek. waaw tofam ay deux ans trois ans lay màggee. ñooy jur parce seetaan naa ko Papa Guèye. ñun nag ñoo seetaan ni Mansour Diop mbapat di xool Mansour Diop ay cuisam. ay cuisam waaw di xool bul bi nekk ci loos bi. ah non bëgg mel noonu bu subaa. Mamadou forme Mansour amul ah, sax bul boobu lan moo koy bi ah. bi nga teg sa loos mooy mm. indi bul ba ñun ñuy espérer ko ñu ñu bëgg di am bul bi <laughs> ak bul bi am ci côté cuisse nii mm. à force de s'entraîner bul yooyu dañuy génn mm-hmm. ñu dañu topp mën zone mago ñu la bëri de eh. mais dafa teel a bëri uh-huh. man yàlla dogal ma doon ko mos a rus ci làmb nag mosuma mm-hmm. ah. koo dëkk ci àddina mosuma mm-hmm. bëri ak moom te pourtant dem naa nag ba aye moom làmb waaw wallahi asi moom sax moom ko nett li xatoon naa ko ma dajeeg moom ànd ak Gaston man mii moom war dem bëri ji mu dem benn làmb ma xool na Gaston mën sóor boole maa moom bëri ak moom li ma jubloon yëpp moom mooy boobu temps ñaari carrière yi bokkuñu. moom mi ngi génn. waaw man maa ngi ci digg yëf yi. Mhm. li ma bon mooy bëreew ak moom. Mhm. mu am ci xaalis. mu am ci xaalis. Mhm. mu daan wala ma daan la amul problème. loolu mooy yéene bi ma amoon ci moom bëreew moom. waaye mosuma koo dëkk mbapat. te ànd naag Balla Bèye mii numéro un. mbapat ma dëkk ko ku mu mës a àndal dëkk naa ko bëreew moom. mais moom dama ko ma di teggi. ndax loolu maa ko xam sama diggante moom. waaw man sama la ñu ci mbapat. waaye man dama ko seetaan partout. mais làmb musuma dëkk. musuma ko dëkk waaw nit ko amoon naa yéen rek bëreeg moom baax a baax a baax. mais mais balaa maa ñëw ci combat yi Babacar arbitré ci say combat. Uh-huh. Moustapha Gueye moment boobu lan moo defoon succès bi ak victoire yi. ah voilà xam nga rek euh, comme ni nga ko waxee sànq rek dañuy fekk ngemb li ci ci kër gi. Mm-hmm. suñu mag yore ko na ko yàlla yërëm. suñu famille yëpp du bëre. Ah, ci benn quartier nag boo amee ko fi sport boo xam ne def populaire ñëpp fay gane si mm-hmm. moo tax yeneen bëri kii fi nekkoon ñoom Tubaabu Joor ñoom Birahim Ndiaye ñoom Biitaak ñoom Papa ñoom mujjee ñu ngi topp ci mm-hmm. donc vraiment moo taxoon face tout le temps rek ay ndanaan di fi nekk ay escalier la ku nekk xamoon formé sa classe nag ak sa catégorie face ñu daan dem ba par ku nekk xam kan nga war a bëree rek ku dul mm-hmm. donc ñoom dafa ñu apprentissage jaar ci la bonne école mooy mooy écurie Fass mhm. boo gisee écurie Fass des ba léegi nag écurie Fass ku bëgg a bëri ji bëgg bëri jóg bëri jéeg ñoom mooy leen liggéeyoon démb la teg ko fi rek moo fi léegi ba léegi moo fi ne moo tax occasion la mhm. pour sunu xale yi ne ci écurie bi mhm. war a gën a jël seen bakkan teg ko nële pour fexe ñëw sigil sagal ñu ndax tamit euh, c'est pas tellement ça je pense que kon ku ne xam na ne bu njëkk moo dàq léegi de phase de mbay Guèye de Mame Gorgui ba ci Moustapha Guèye mm-hmm. ba ci ab approché un Gris Bordeaux mm-hmm. après des la. des c'est la mort complètement. Mm. et que yëpp demee nañu les points. mais tur nag moo fa ne nag. du fa jógee ci. Mm. tu as deux questions. Mm-hmm. voilà la première mooy pourquoi le tigre de Fass. muy benn. non boobu Eh. beneen bi ma bàyyi nga foofu. <laughs> beneen bi. Ah, ah. pourquoi aussi slogan wu je t'attaque je cogne et je ah, gagne. ah sama question bi non non non sama question bi. non damay commencé. ci ci deuxième. à l'école amoon nañu ko à l'école man Tigre moom moo ko ci créé Tigre. Hmm. mu nga tëdd Touba nelaw. deuxième Tigre. damaa ñëw rek. àggali mission ba. jël sabadoor bi sol. jël yenn ci gàllaay gi takk. sóobu ci biir géej. laataa may dugg nag sax di jël sabadoor yi takk di sol. Mbaye Guèye mais Sol Sabodala mi ngi ci lamb di bëri attention. son dernier combat contre Mohamed Ali. yaa boobu commencé nga di bëri. ah si tàmbali naa. y' a un petit combat. ay petit combat démarré naa tuuti. yow bëri nga petit combat lu bari. benn petit combat laa bëri benn deuxième combat laa bëri mais intronisation comme le cas de Gris bañ koy introniser. am non non non man daal naturellement la ñëw rek déjà dans les journaux ma commencé bëri commencé ma commencé arène un nouveau tigre est né. Ah. Mm-hmm. tigre de Fass bi nag. c'est à partir de quel combat. dañu wax ni un ah, nouveau ah, tigre. waaw ah, vraiment euh, boobu c'est à partir de docteur Faye la. docteur Faye voilà. mais parce que génération yi wute woon loolu tuuti un peu. maanaam boobu mooy mooy jamono yi grand contre petit. comme yi xew léegi rek. ay Balla ay Lac de Guiers ñëw. bëreeg booy bëreeg ay Moustapha Guèye bu dee jamono ji nag mooy mooy des fois nga ne eh. eh waaye Reug Reug la bëri ak Balla Gaye. ah du ma ma noonu. nga force pour dem ci grand yi pour dem jël seen ko bañ. falaa bu yàgg yàgg ñu mujj néew ay at ñu mujj daal ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ay grand champion gën leen néew at léegi damay ñëw ci Tigre de Fass Tigre de Fass bi yow combat bi ngay waxe ngi nii Balla Beye waaw maa ngi arbitré yaa ko ah? ngi noonu taxaw yow bii nga arbitré mm-hmm. beneen bi Sitor moo ko arbitré mooy moom ci laa doon wax ne arbitre bi yàq la laa mujj dafa gaaw dafa gaaw jël victoire quoi non non non mais gis nga moo tax sànq ma ni la dans l'introduction Tafa tax na ñu aménager. règlement bi ci bëri soo xoolee sur sa combat ba ñuy wax nii arbitre bi moo yàq làmb ji arbitre bi yàqul làmb ji il a la réglement règlement ci la gisee nag ni après réglement bi am na fay bu boobu mm. combat beneen combat bi ah. mooy le combat de Tafa Yékini Tafa. boobu il faut ñu ñëw ci Barça. Ah, yaakaar dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat. dinañ ci ñëwaat Tafa le tigre Fass mi ngi jóge ci mbay Guèye. sa njàmbur. Mbaye Guèye premier round sa njàmbur dóor ko jëbbi toj. ñu ne Samb le docteur bi doon. bi mooy ardo temps yooyu. Mm-hmm. ñëw ci mbéygéen nii nañ leen arrêté combat bi. mbéygéen nii du arrêté combat bi dóor nañ ko fiyam toj na moom da koy bëri mën naa bëri mm. ñu bàyyi ko mu dem bëri waat mu bërewaat waa ji fa mu ko dóoroon mu dóoraat ko fa. mu indiwaat ko ci médecin. mu teewaat indiwaat ko ci médecin médecin ni man génne naa ci sama responsabilité. Mm. mais mbéygéen était tellement aimé par mm. les gars de l'arène. Uh-huh. mais ñoom pour ñoom. guerrier bi guerrier la day daan waaj. Mm-hmm. mais. ay supporters am ñu bëri découragé na na arrêté deret ci bari na nangam nangam Mbaye Gueye dem bi waa ji di dóoraat nag foofu mu daw jël ko. daan ko ko jël bu rëy bi nu xëyee le lendemain journal la Soleil góor gu ñuy wax Yamar jóob mm-hmm. mm-hmm. benn leen xale journaliste bu nekkoon da daan def làmb di def course. Mm-hmm. <laughs> moo titré. le tigre de Fass. moom moo choisir tur moo choisir parce que bi mu xoolee mbéy ak deret jeeg ñàng ñàng beeg yooyu. mu ne kii c'est un tigre. mu tudd xëy nag mu. tigre de un tigre est né à Fass. Ah, mhm. fa la tigre bi jóge ba léegi. bravo journaliste reporter bu nekk dangay am loo fi war a baax. Mhm. Mhm. Ablaye Diaw am na lu mu fi baax. yoo xam ne bu ñu ko déggee xel tem ci moom. Alaaji Moustapha Ndiaye la même chose. góor gi yamar loolu la def. un tigre est né à Fass. Mm. Mbaye Gueye <laughs> affaire ba jolli. waaw mu doon nag star boo xamante ni kenn mënu tuula ko. j'attaque je cogne et je gagne. waaw waaw léegi j'attaque. j'attaque ñu ko doon def dama koy wër. boo amee looy wax nga wax ko ci kawam. ñun garaawul ñun garaawul ñun amul problème dañuy waxtaan quoi. waaw ñun dañuy waxtaan quoi j'attaque je cogne et je waaw slogan boobu noonu foofu ban combat la jóg. waaw euh, yaakaar naa maa ngi koy waxee euh, sama combat ak Balla Gaye bi RTS. Mm-hmm. Balla Gaye numéro un. Mm-hmm. Euh, le tournoi de Balla Gaye numéro deux. Mm-hmm. nga xamante ne moom la RTS doon def benn documentaire ci moom. ça m'est venu comme ça et c'est parce que noonu laa doon pratiquer. da nga koo wax nii rek. oui ça veut dire comme ça. du loo préparé du loo préparé ci combat. mais mais man je pense que nii. <laughs> ça n'est pas venu comme ça. parce que <laughs> non c'est vrai ah. parce que un athlète am na fooy toll ci sa préparation. xam nga xam ci sa disposition physique tactique. Mhm. ah nga mhm. xam ni yow tey tu peux dérouler le combat avant même le combat mooy. Moustapha da koy gis même euh, dans ces combats da ngay lire que ni moom. day am dafa am lecture combat. waaw mm-hmm. comprendre même avec ses poulains da ngay gis la finalité de de Moustapha. Mm-hmm. dans dans les combats. donc loolu moo tax peut-être entraîné na loolu. Mm-hmm. xam na boppam mu ñëw face à un adversaire mu ne j'attaque je cogne et je gagne. ok waa presse presse bi yëkkati ko ko. voilà mm-hmm. tey. Mm-hmm. Eh, slogan yooyu dootoo ko gis. Mm-hmm. mais da ngay gis mbër bu la wax nii dinaa la daan dans deux minutes. xam nga. waaw dina dinaa la daan dans deux minutes. ah du ma sama tànk du de du dellu ginnaaw. damay damay pour wax la improvisation bi mu wax na damay def bantamba Siteu di préparer combat am ak Zos. Mhm. ma yéeg ci turbine bi rek yem ci Siteu ne ko Siteu Zos bu la jàppee mu ne ma Zos du 100 francs ñu xëy. <laughs> yow xam nga Zos du 100 francs lëmbe na woon na àdduna. <laughs> c'est-à-dire mën na nekk loo xam ak bayre dafay am. effectivement aussi yàlla day am kaddu buy génn boo xam rek yàlla day nangu. en fait Babacar. Ah. Euh, euh, maa ngi dégg nga expliqué léegi euh, la confiance même su may bëri ci. Mm. non man de ah mën naa ne ci samay cinquante combats. Mm. mun naa ne cinq yëpp. ñi ma doon bëreel maa ngi defoon condition physique maa ngi gënoon baax préparation. maa ngi gën a comprendre. Ah. maa ngi ëppoon confiance. Mm-hmm. yaa leen gën a comprendre lan. Ah, sport ñi ci bari ñi ma daan bëri ñu bari bu mosal sumee ko dañ naan non kii war lu bëri moom. mais li nekkoon ci man ci ay entraînement nekkul si ñoom. Ah. Mm-hmm. amoon nañu man bokk naa ci bëri nga xamante ne peut-être ñoo njëkk commencé di pratiquer li naan. entraînement moderne yi mm-hmm. les bonnes salles de musculation mm-hmm. les les ay ñi xam-xam ci joxe condition physique mm-hmm. ñi am xam-xam ci jox la doole fekk yow waa ji ëpp na leen trente kilos plein de choses ji la ji la mën a bien encadré ah c'est naa sa entraîné na c'est ça c'est euh, euh, nekk naa ci làmb ñu duma ma parce que xaw ma luy xeex maa ngi xeex xeexu mbedd comme tout le monde ku nekk xam ne làmb moom bi gars yi mbër yi commencé xam direct crochet uppercut yàggul uh-huh. am ñoo xam ne don la mos a nekk si ñoom ku mel ni Youssou Dieng ku mel ni ay Landing Diamé ay ay ay ñooñu jàngi sax dóor mais dafa nekkoon don si ñoom ci biir mbër yi mm-hmm. nga dëgg ñu ne bëri pataar ñoo nga xamante ne peut-être aujourd'hui bu ñu doon dund seen téeméer ak passé na nga diggoon dañoo mën a dóor don lay nekk si ñoom ak yëg-yëg mm-hmm. mais ñun nag dañu am ay maître yu travail ak ñun man bi ma ñëwee ñu ma dóor ma dóor yu mm-hmm. mooy sa combat ak euh, Ibou Ndafa Ibou Ndafa waaw mais benn grand bu ñu wax Iba Dia nekk France dafa ñëw daje gàmm Paris ne ko nañ dem Dakar jàppale Moustapha Gueye mun dóor te mun na bëri gàmm bi bu ñëwee Sénégal fii en tant que boxeur nekk naa man ay année tantôt mu dem tantôt mu ñëw suñu kaw terrasse dañu doon fayte moom jàngalu ma xeex naan ma gauche droite ma teg ay po dafa doon teg ay gants boobu mooy plate mooy jàngal bi gën a bi gën a baax da doon xeex ak yow pratique. commencement bu ñëwee suñu xeexee deux minutes day sonn parce que nekkuloon ci entraînement. ba ñu ba ba ba rouler. dañu bi di jël gant ba sama yaay taxaw di yuuxu di tap di yuuxu géem gi. laay bu rey sama doon. tu la déjà. Mhm. dañu xëy dem géej fajar dar yi ñëw bu ñu déggee yee ci kaw. Mhm. man ak moom man ak moom ba ka a dajaloon ba ma dajawaatee ak moom. Ah. et puis ci diggante bi yàlla dogal ka ma duma woon. mën naa ko sax wax tamit. non dañuy waxtaan wax waxtaan la bon sama mooy mooy bu ngeen ma laajee souvent ban combat gën a métti ci ma leen ki nga xamante ne sama combat Ibou Ndafa moo gën a métti samay combat ndax moom mu noggatu woon. Hmm. <laughs> j'étais jeune lutteur. mandego mu nag ndaanoonu bërekat nag. te moo la mën bëre ba pare ñëw ne kii daal dama koy corriger booy bi. waaw façon bëre bu ne jëm na ko bëgg lépp daan moom mënu ma daaneel. Hmm. mais dafa téye sama njàmb man téye ma njàmbam du ma rokkos ay coupé. mais tenir naa ba bañ def machine yi après sept mois wala huit mois lañ bëriwaat bëriwaatuma kenn ci diggante bi diggante boobu nag la am chance am Gambi Keita par l'intermédiaire de notre grand frère Iba Dia bi nekk à Marseille mm-hmm. frère u Khalifa Dia Moussa Dia et tout bi ma ñëwaatee ki ji wallaay jour boobu peut-être sax que Idriss que Ibou Ndafa su bu xamal nekk sama bopp mën na ma daan parce que dama ne damay ñëw bëri siwu ma damay fay si mm-hmm. damay xeex mm-hmm. heureusement boo ko gëddee ko dafa reculer ba ci barrière yi ñu dellu si ñu attewaat ñu. Mhm. maa ngi dégg ci ginnaaw mbéy ngay diixu da lay song da lay song da lay song xam naa damay song ndax moom songkat la. waaw ay ba fa siffler rek may dóor si mu àgg moom foo xam ne sax c'est trop. bu baax dafa dugg ba su yegg heureusement nag bopp bi génn ci biti ma génn ko këpp ko mu jeex kooku nag aujourd'hui nekk sama nit nekk sama xarit mhm. ñu bokk benn association waa léegi combat di rëcc métti yi ñu defal suñu diggante ñun ñu di rëcc aussi rëcc rëcc xewal suñu diggante ñun ñaar barki Dembo Njaay rek ñoo ànd di am dox yi ma jógee sama kër dem ba këram loolu day wane les relations de lutteurs yi bëree. waaw dañuy rafetal saa saa su ne. ndax bis day am day jeex. mais dama bëgg combat yooyu ngay wone laa dawal ko ma indil nu ko ci écran bi mu am combat yu nu wax tuuti bii moom danga ko may mu dóor bàll bey yaa ko dóor ndaw euh, loolu la ñu ubbi combat cokkaas cokkaas yow xamoon nga ni boo cokkaasee mu ñëw lii moom vraiment yàlla ñu dimbali ah. ni ñu ko préparé yàlla xam na ko amul lu ci échoué <laughs> que da nga koy dóor mun a bërit song si la mm-hmm. bu la laalee dalay plaqué bu la bu la plaqué da koy mbot loolu loolu dañ ko répété di ko répété ba dernier jour <laughs> boobu ñu ngi entraîné Camp Leclerc. Uh-huh. dernier jour d' entraînement. Uh-huh. ñu ñëw échauffé wu étiré wu commencé contact. premier contact bu def ak Gris Bordeaux nii la demee entraînement bi tas ñibbi. Uh-huh. ñëpp na saa yee saa yee saa yee ñibbi. moo tax ma ne ndaw toujours rek mooy jox condition physique. mbër mag. moo tax ma ne mbër yu mag yi war nañu fonk baax baax. mbër yu topp seen ginnaaw. parce que la ñu yóbbu ci làmba ja ñoom ñoo koy jox. ñoom kese bu ñu ko jox seen bopp déggoo mbër su daanoo ñu ne kontagul bu kontagul ku mu kontagulul xaleem ya xale yooyu nag am na fooy toll ci âge dootoo sawar sax di contact ak ñoom hmm. parce que dañu am gëm-gëmu waa bii na miin la karaajo wàcceel boobu waa bii Xaalim Njaay bi nga demee ba jàpp ci loxo bi di temps temps wu 45 minutes la yaakaar naa. waaw waaw su ma juumul tamit rek. mais temps bu guddi la. non du risque. waaw en xam nga prise moom boo ko maîtriser. Mhm. boo ko def moom doo ci gis risque waaye say gars ñu koy gis. mais yow doo ko ci gis parce que maîtriser nga ko xam nga fi fii déséquilibre bi moo fi am. waaw ah. jàpp adversaire bi kor ko téye ci biceps bi def un pas reculé li ma soxla woon mooy tànk bi ci ginnaaw wuy si. bu hmm. tànk bi ci ginnaaw décollé rek mooy mooy c'est fini gis nga jóg na. Ah. il est obligé mu dem bu demul nag aussi dàpp ni ñu ko jàngale ci ay lutte gréco-romaine sa épaule mën na déboîter. j'allais demander ça gis nañu sur le plan allez-y. non que sur le plan technique. oui da nga outillé woon. dama. da nga outillé woon. ka outillé euh, bien outillé quoi. moo tax moo ne bokkul na ci say force au-delà de ça gis naa sànq aussi say doom def témoignage. parce que man mm. euh, question boobu dama ko bëggoon poser bu yàgg. comment un père de famille aujourd'hui mm-hmm. Mm-hmm. quand il sort mm-hmm. pour aller lutter quel discours ngay tenir tes enfants ñoo xam ne dañoo a voir ton père muy recevoir ay coups qu'est-ce que ça fait c'est très dur mais c'était quoi le discours après aller ak retour si jamais tu perds si jamais tu gagnes ñi gën a ñuux gën a a jege di gën a kaf ak ñoom di gën a ñere ak ñoom c'est ah. say doom la ñuy doon parce que yaa ngi ko ñoom ci kër gi ak loo entraîné loo yëngu yëngu yëngu tamit mm-hmm. yéenay añandoo yéenay mm-hmm. ñoom mm. mbaam loolu mbër ma doo ngay lekk li ci ëpp pression <laughs> pression <laughs> lekk bu baax waa kër gi mais oui te mbër mi day lekk mbër mi si ñoom si lekk bu boo ko daanee boo ñibbi si këram sax bu sangoo pare ginnaaw jooy stade yooyu ñu lëngu ko baa këram mooy lekk nen <laughs> am na benn parce que xam ne c'est pas mbër bu ma ci nekk bi <laughs> ah? ci champion bu mag la woon ah. ànd ak gars ñu dem ñu daan ko ñu ñu teg bulet bi dafa mu teg bulet bi cummikaay bi yëpp ñëpp ni noo kenn du reer dog suulay mbër bi ñëw rek xëcc sees bi mais du reer mais ni tey <laughs> gaa yi fa leen jóge nag Mm. xaw ko mere. <laughs> parce que ñoom ñu ngi mer. moom muy ree moom muy ree mm. mais as yow fii combat bu mag am na fi ñu xëy la lendemain. Ah. ñu dem seeti le vaincu. waaw bi jëmee këram xar la rey. moo lekk lekk ba moo ko lekk ba pare beneen bu ma bëgg wax bii. karaajo boobu di daw noonu. indi ko parce que combat boobu dafa koo soxla mu wax ci tuuti. kër bëgg même tuuti mu ah, ah, ko tëye ko ok donc euh, l'occasion ma ma remercier waat sama doom yooyu. ñett ñoo ñu ngi gis ñu ngi gis ci écran bi yëpp samay doom lañu. macha allah ki liggéey moo ku jigéen ki mooy la plus grande. Mm, macha allah ñee ñaari ñooy les plus petits jeunes. Mm. ñoom nag ñu ngi bitim réew di jàngi di daani seen doole. Euh, kenn ki c'est un sportif. ñaar gi c'est des sportifs. mais amoo doomu mbër. non amu amaguma doomu mbër. bëggoo ko. Euh, en fait bëgguma ko parce que euh, xam naa ne sama xol du ko supporter waaye bu ma gisee ko ci mën nag dinaa ko encouragé jusqu'au bout. voilà yeggaleel ak. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw xol bee ko du nangu nag. ndax xolu baay ak doom moom. ñu si bari seen seen kii voilà yaa Vicky Guèye mooy seen grande sœur. waaw yaa Madiagne au milieu. yaa Mouhamed Rasoul euh, ci ginnaaw. Madiagne sama copain nga ko tudd. waaw sa copain.